politique du ay ku ndaw dëkk roi ci boppam dama laa laaj élection xam la du tur xama nga Sénégal dañuy du ñuy fàtte as dañuy jaawale tur ak am doole ci ci ci politique nit mën na am tur maanaam Sénégal yëpp xam ko je n'ai rien contre ñi ñi ñi ñiy lapp mën naa cee boole par exemple ku mel ni Thierno euh, Thierno Bocoum mais Thierno Bocoum wax dëgg yàlla man naw naa ko ndaxte jeune bu gëm boppam di xeex di am ay position yu ma naw mais Thierno Bocoum euh, fan la am doole mais fenn. et le cas de Bougane. Euh, mais Bougane Bougane gëm sa bopp man damay wax ni euh, waxoon naa ko opposition bi bi ñu xam ne dañuy woote man leen Bougane quand même qu'on le veuille ou ñu ngi gis muy def ay meeting de rassembler di def ay tibb tànk ak di def ay et cetera di dem fu nekk ci Sénégal de rassembler donc li ñuy gis noonu gis naa ne quand même munoo wax ni gëm sa bopp amul dara demagul nag benn élection bu ñu ko natte parce que dafay dem parrainage amul ay amul parrain yu doy. bañ éliminer loolu mënuñu ko ci natt. waaw loolu loolu loolu nattukaay la quand même mais parrainage ba jaarul yoon loolu aussi dama damay nangu ni parrainage moom Macky Sall daa tegoon cinq candidats xam ne Sonko bu ko éliminer dee na mais même bu dul loolu mën na éliminer Sonko lu ko neex la def ci parrainage parrainage bi jaar yoon et puis moo waruloon am kon nag man dama jàpp ni Bougane li gënoon ci moom mooy mu dem ànd ak euh, yeewi askan bi man jàpp naa ni. c'est une erreur politique loolu laa gëm man li ma gëm ba ca cappaandaw. raison yi mu joxe bu génn ci loolu. Euh, c'est pas euh, c'est valable moom mu ne telle région maa fa ëpp doole ca la doon génn mu am sens. mais nee dafa am manque de démocratie au sein de parce que nekk guñ di wax dëkk bu nekk koy jiite. man pour man foofaay coow li pour man élection locale la quoi bu ñu wut. Euh, man pour man yenn raison yu détails yi nga am si moo leen di wutale loolu détail la xamul tax asu fan moo am importance bu ñu demee ba war a teg nag l' de commune communes opposition bi comme pouvoir bi ah ñu war a wax commune bu nekk koy jiite. ñu ne Dakar Plateau léegi kan mooy ne kan nekk maire kan mooy nekk sunu maire ñun opposition bi Barthélémy non diw la ñuy proposé wala kenn ñuy. proposé kan mooy mooy nekk candidat waaw parce que kan ba mooy. ki nga xam parce que boo nee maire bon supposons. seen maire parce que keroog mooy maire parce que ku ku teg sa ki ko jiite mooy sa maire yow. Mm-hmm. moom nga teg sa maire. parce que boo gañee mooy maire bi loolu laa la parce que raw gàddoo am léegi léegi nag bu demee ba tollu foofu man pour man foofa bu ñu ca demoon jàppante ca génn man ni loolu c'est normal parce que wax dëgg yàlla man tiital naa leen ñoom ñëpp muy pouvoir bi comme opposition bu ñu demee ba war a tànn mais ku leen di représenté ci list bi kuy jiite seen liste ci commune bu nekk man jàpp naa ni coow am foofu mais euh, donc man li ma gëm mooy Bougane position bi mu nekk c'est c'est dommage parce que moom mu àndoon ci coalition bee renforcé leen parce que qu'on le veuille ou non damaa gëm man ni coalition coalition Ousmane Sonko ak Pastef euh, ak euh, ak euh, Taxawu Dakar ak PUR bu Moustapha Sy parce que PUR bu ñu wër-wëral PUR waa ji fi nekkoon doon waxtaan ak Macky Sall bañ dàq ko ci parti bi mooy l'ancien Issa Sall moom yorul pa parce que parti boobu parti la boo xam ne dañoo am un guide spirituel ñooñu ay taalibe lañ fi neen wax voté leen foofa la ñuy voté waa jooju bu demalee bu demalee boppam di créer ab puram doom dara ki ki yore pur mooy Moustapha Sy moom bu ne ay taalibeem voteel leen Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi la ñuy voteel te ñoom nag bu nit ñi bu leen nit ñi xeeb de dafa am gox yu bari yoo xam ne si dañ faa ñëw ay deuxième ci ay élection ak ay troisième. mais mais Bougane yaakaaroon dina mën moom aussi demal boppam gagné gox boo xamante ni. kan mooy demal boppam. Bougane comme ni mu ko defee. parce que moom aussi il est en coalition. ñu fàttali ko man dama lay wax man li ma gëm laa lay wax de mën fii laa ko waxee. xam nga ma fi wax yëpp bëgg naa ni ñu vaar ma après. Mm-hmm, élection après élection la yi nañ ma vaar xam lu ma gëm mooy moom it mënut a gagné benn dëkk maanaam. Euh, alors que tey jii nit ñi mën a njort boo laajee sénégalais dañ naan la mais tax euh, euh, yeewi askan wi quand am nañ chance su bokk beaucoup de communes à Dakar yeewi askan wi am nañ chance su par exemple beaucoup de commune dans le sud ay Goudomp ay Ziguinchor Bignona. bu ñu déggoo Sédhiou non non déggul yeewi askan wi rek yeewi askan wi kese yeewi askan wi maanaam pur taxawu Dakar. bu Khalifa Sall ou taxawu Sénégal ak Pastef bu Ousmane Sonko mën nañu remporter beaucoup de communes dans le sud loolu leer laa lay wax te li may wax lu ma xam na mais souvent dañuy dañuy soulever ay question de euh, problématique de leadership ci ci biir ki moomee jiite bañ na ko ba sax pour coordination bi bu tayee kii jël bu bu bu subaa jël mais loolu mais mais, mais est-ce que waruñu wóoloonte aussi parce que dañu nekk ci coalition je pense que jiite moom fu mu jaar à la loolu mënta ñàkk asu gis nga même loolu ñu koy wax loolu mënta ñàkk parce que wax dëgg yàlla Euh, ñoom ñoom ñëpp dañoo nekk ay kilifa yu mag ci biir politique ku ci nekk am dayo boo am ci politique man nag damay wax ne noonu lay demee cest à coalition boo gis dafa am ay ponkal